allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. allo. allo. ah asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaat. Eh, allo. allo. Eh, allo ko kan la Omar Cissé. ko kan la. allo. yow la kan. ma ne ko kan la Omar Cissé kër Jibel Suuf. waaw yow la kan. waaw man la Tafsir Keba Diagne Demba Réew mi maa ngi lay nuyu bu baax. mooy li ma lay waxatee ngi nii. tafsir Kewa Diagne démb réew mi tafsir Kewa Diagne Njaañu Ndip kay Njaañu Ndip nga dëkk. ah waaw ba lay ba lay suul sa buur bi nga naan ay démb réew mi. waaw si kàddu gi démb réew mi lan la démb réew mi groupe la rek doo ba nga dëkk sa Njaañu Ndip. waaw nga xam sa cosaan waaye boo sañoon Njaañu Ndip gent. waaw waaw kon tafsir imam Kewa Diagne Njaañu Ndip yore kàddu démb réew Omar. lan la allo. naa lay dégg. allo. maa lay dégg maa lay dégg. allo. waaw maa lay dégg. waa kay Omar. naam. waa kay Cissé na ngeen def waaw Diagne. sa yaram jàmm. alhamdulilah. mbaa yéen a si jàmm baax ma tey sa baat bi yaa ñu ne de xanaa fa nga ñib si kay. waxal kaar. ma ne xanaa xanaa fa nga ñib si laa wa wa waaw kaar laa wax. ah. kaar kaar. man ma ko tey sa baat bi yaa ñu ne kaar macha allah waxal loolu. déedéet ma ne xanaa fa nga ñib si laa fa nga ñib si. ñib si fan. Ah? Dakar laa déedéet Dakar dellu si laa koy def rek dama fi si man dëkkuma Dakar bi. ah foo nekk nii est ngay wax ak man. man maa ngi nii jaaxal sama lal bi kër jibee suun. Ah, sa lal bi kër jibee suun Omar. maa ngi maa ngi nii jaaxal ci sama lal bi kër jibee suun waaw. ah lu xew. ah yow salaam. yow nga xel ak xibaar bu ma dégg ak yow nga mën a tëdd nii da nelaw. ah euh, allo. waaw waaw ma Eh, yàlla dafa dogal comme man nitu xalaat laa te day yëngu si wàllu mbay mi ñu bëri ràññeeme si wàllu mbay mi. te lépp loo xam ne day jëmale mbay kanam ak baykat yaakaar naa ñëpp xam nañ ma si ràññee nañ ma si. waaw allo. maa ngi waa kay ma ne. waaw lépp loo xam ne day jëmale baykat kanam laaw ni ñu ràññee nañ ma si xam nañ ma si. waaw lépp li yàq mbay maam ci taxawaay boo xam ne yaakaar naa kenn du ko laam-laamee bokk na loo ma loo ma loo ma bañal bañal nangul nga ma ne wax dëgg yàlla mbay mi maa ngi si def kéem tolluwaay kattan pour mu dox lépp lu lépp lu yàq mbay mi daal sa laam nañu ci moom léegi léegi léegi nag maa lépp loo xam ne lépp lu yàq mbay mi yàqal baykat bi waaw déedéet Omar Omar dégguma wax la man affaire yàq waa lépp luy yàq mbay lépp luy yàqal baykat yi sa sa laam nañu waa déglu nag man li ma tax lépp lu ñu yàq rek loolu rek la mel. waaye noonu topp nga ni topp nga ni ci ruus sottul ci yow nga topp ni ci mbi sa faraw sottul ci yow nga topp ni sa faraw sottul ci yow ba alhamdulilah rabbil alamin ñu jël li nga xam dugal ko ci kër gi. nga ñuy xalaatal ay nga naaf wala ay ay ay ay ay ay waaw ñu mën a ñëw ak ñu am ak seen làmb yi bu ñu toll nii dimbali ñu rek. waaw ñu am ñu lekk ci saa woote ak xel mu dal ñun sant nañu yàlla. waaw ma ne. waaw dama dama ñaari wax dama dama ñu seex fan ñu naagu. waaw dama ñu war a ban war a ñëpp ñun ñun dara mbokk lañ di gërëm ci yow. waaw dama ñu gën a seen làmb ci mbay mi allo. xanaa dafa am dafa am ñaari Omar Cissé kër ji bésul wala Omar Cissé mu ma la am dëkk ji benn Omar Cissé kër ji bésul moo am waaye de waaw waaye waaye waaw bañ commencé ba léegi yàgg maa ba duñ toll nawet bi jàll ba ñu waay Omar yaa ngi mel ne xamoo ma yow Omar Cissé yow waa déglu rek bu baax laa la xam bu baax laa la xam waaye léegi waaye kon waroo ma seedeel lii wala taxaw li li ma ne ku ko dégg ku ko dégg jàpp na damay xeex mbay wala damay xeex a bon a bon mbay yow a bon ndoxum. bañ naa ko ba bind téere mbay pour jëriñ baykat yi bañ naa ko ba bind téere mbay. kon war a taxaw loolu ma ne ma ne téere bi li ci bind wax kon loo ci bind. téere bi pour jëriñ baykat téere bi amoo eh, ma ne ma ne. ko. téere bi man ah, bi amoo ko laa waaw ma ko bëgg ko. waaw baax na danaa la ko wutal téere bi bàyyi garaas. téere soxla ma téere ma man man man man man man. waaw damaa déglu waaw. waaw fi mu ne fii daal ma ko waxee rek li bi naa ñi. déedéet dama bëgg nga déglu mu baax dama na la. man dama am xalaat am solution. li ma am nag bokk ak baykat di bokk ko samay mbokk te yow sama mbokk nga baykat nga. loolu nag moo tax man du ma sa mbokk man maa yow sax sa lañ maa yow sax sa lañ boolewul. Omar xanaa da koo dëkkoo Saalum wala dëkk Saalum. man dëkkuma Saalum. yow doo jullit may jullit. duuma jullit yow ci loolu duuma jullit. déet Omar. waaw bañ a bokk man tax jaral na la nga bañ a nekk. bañ a a bañ a bokk kay. ah jaral na la ko. jaral na ma ànd ak ah, waa baax waaye li ma taxaw woote laa jàmm la ak salaam. gannaaw yow xamul ne yow xamul ne bu la du dëgg. waaye de waaye dama bëgg nga xam nga bala ngaa toj jëmale sàmm xam ne wolof dafa dogal. ñu bëri ñu ma woo waaw xam naa li ma xam naa li ma wolof. waaye waaye waaye nit ñi dañ maa soxla sama xam-xam di ma woo di ma laaj noo xam ci wàllu nawet bi rawatina fu mu toll nii ndax. ñu bëri jaaxal nawet bi passé nañ nawet bi ñun gën nañ ci nawet bi alhamdulilah daal mais kenn nañ yàlla. waaw moom laa wax ñu gën nañ ci. waaw waaw dama ne ñu bëri laaw léegi seen bët yaa nga xonq jaaxle nañ xamuñu ñu def tiin nañ léegi nag man ma ma maanaam si wàllu gerte gi fu mu toll nii ma xam si xalaat xam ne nag yaakaar naa ne su ma ko andee ñu bëri dañ ko man a partagé nga xam ne pour ndimbal lay doon su ñëpp ñu mën koo jëriñoo lii moo tax ma woo la te man jàpp naa ma lay wax nii loo ma kon waaw déglu li ma la wax am na yow waaw jërëjëf jërëjëf maanaam da ngay théorie man damay pratiquer man naa leen su ñuy jaayee gerte maa ngi duñ koy jëndee man bay naa gerte bay naa dugub waaw man maa yàlla gis naa tur ba xam naa dama doon maa yow loolu. waaw loolu rek man bàyyi waaw déglu ma. waaw loolu pratique du bëri yow dangay pratiquer da ngay da ngay da ngay da ngay théorie man nag damay pratiquer. man bàyyi ma waxee yow nii kilo gerte. oto yaa ngi wër di di di jënd trois cent quinze mooy ñoo gis gerte trois cent quinze juróom benn fukki dërëm ak ñett ñu ngi koy wër doon jënd juróom ñaar fukki pour lañ jëmale ak téeméer. waaw waaye déedéet waaye déedéet man waxuñ ma loolu man li ma li ma kalaat mooy li ma kalaat nga xam ne dana nekk ndimbal te te du gaañ baykat bi denc gerteem gi ndax gerte mën nga koo denc saxi da koy dundee mën nga ko denc mu saxe mën nga koo denc ñëw gerte ga lakk yooyu yëpp mën na si am ma xamoon beneen xalaat boo xam ne nag moo gën léegi nag moom laa bëgg ñëw bokk ko yow pour nga mën koo yaatal lii moo tax ma woo la tey xam nga nit bu la waaye waaw loolu waa da ngaa waa da dégg waaw du du nga dégg naa ko du nga wax dégg waa waa waa déglu rek mu nga wax dégg naa waaw waaye suñu tool ni yow mën ngaa dund ne lan yow mën ngaa dund sax yi da nekk ci yow. déedéet déedéet waxuma loolu de. lo benn la rek. waaye non non non non waaye déedéet waaye déedéet ma ne ma ne ma ne bul tontu yow mën ngaa dund sax yi da nekk ci yow mën ngaa dugg sa place dañ caa doon yàgg place bu courant bi manqué place bi tàkk loolu mën naa ne. waxuma loolu de. dama na la waaw loolu doo ko wax. yàgg yàgg ku denc gerte ñëw te gerte gi yëpp saxe ba yàqu mos nga gis waaw waa déglu rek ma ne yàgg nga gis projet daal itam toog li ma lay wax li ma lay wax du question yéene du question man xam-xam laa la wax du yéene ma ne yéene ci ne la wax rek bu ci boo sànni tàngoor dara koy we rek léegi loolu léegi nag li ma andi tey mooy dama xalaat ne mboolem koo xam ne yàlla dogal na nga yore gerte bu fekkee jaayee goo ko te nga bàyyoon xel xaar mu gën a bari li ma gis man li ma gis ma xam ne mooy gën a fi ñëpp laa wax allo maa waa kay ma ne. loo xam ne gis naa ko mboolem koo xam ne yor nga gerte fii nga toll nii. nga xam ne mooy nekk njëriñ loo xam ne dana nekk si yow nekk njëriñ si allo. maa ngi lay dégg waxal amul allo waa kay ma ne. maa yaa maa dégg. maa ngi lay nga xam ne gis naa ko. ba ba ba xalaat si. ba wax ci tax ma woo mboolem koo xam ne yore nga gerte. lii may xalaat bëgg ko allo. li ma bëri waxal li waa kay waa ma loo xam gis naa ko dama jàpp na gerte yu nga xam ne ñu yore seen gerte yore ko denc ko pour sa allo. ma ne li nga wax xam nga ne jiwu moo tax allo allo ji bëri li nga wax jiwu. man damaa déglu waaye waaye. ma ne ma ne ñu ngi leen di leen soxla sa conseil. genn si mën si génne ko laal nañu. waa dégg nga waa damaa dégg ñun ñu amoo lu baax looy looy déglu ñu ci mbay. waaw ba ñu ba ñu ba ñu commencé ba nekk yàlla dafa àllam ne dañu jéem a xaal. dégg nga dégg Omar Omar Omar waxal waxal waa déglu rek waa déglu waaw ba ñu dimbale. waaw non Omar waxal waxal ñu rafet nag waaw ñun ñun ñun ñun yow ñun yow. Omar man du ma jàmbur si nawet bi man du ma jàmbur ci tool yi man damaa nekk baykat acteur laa. waaw jàmbur ci tool yi yow yow. waaw non non déedéet déedéet am na yoo xam ne boo ko dafay xaw a doy waar. li ma gis. waaw waaw man ma ne na ma na ma tool na ma tool sax nga ñëw ci. waaw waaw doy waar. waaw baax na yow yow yow yow dañuy dañuy yow ñu mënoo ci jur tus. waaw ñun mbay mi dara mbott lañ dara mbott lañ ci yow. Mwen pat do dire, llu man enfan may rounke toni. Mwen an Scottish admissions k eller mot, sk utir battle. Mwen banen batare, mwen wane da verne an, mwen vaje man arm la rebal, men beko moun coating yani ta. Mwen wane mwen an, mwen vaje, mwen kate человечe kanine anys Mrs. Dengue, mwen yon kansiianske ki. te yow doo ñu li nga li ñu am jàmm. waaw man loolu laa bëgg man loolu laa ko damaa bëgg mu baax loolu mooy sama yéene mooy sama taxawaay yow bëggoo loolu yow bëggoo loolu nekk naan ne ne ma loolu li ma tax moo woote mooy dama bëgg ne. sama xalaat bi ma gis sax xam ne ñëpp dañ ci ànd man mooy. sa xalaat bi ko jëfee. waaw man mooy dama bëgg ne mboolem ku yore gerte bis ni ki tey bu fekkee jaay goo ko nga fexe nga ruuñ ko nga def ko tiga dege mu jiwu sa bu ko bàyyi xam nga yow mosa goo gis tiga dege gu saxe xam nga lu ma ne wax tiga dege jooju foo ko dencee du yàqu boo légee mën nga ko jaayaat nga dem si jiwu mën nga see def baase mën nga see def maase mboolem ku denc gerte xalaat bi na la tey ne naa ko woo ma waxtaan si ak yow ñu jéem koo yaasal moo gën ñu denc gerte gi muy saxe lii laa la doon wooyee man wax naa la soo ma dégloo ma wax la xam-xam waaye dama waaw dégg waaw dégg waaw déglu naa la. waaw déglu naa la déglu ma. waaw yow da ngaa yàq su ma la bëgg a wax. waaw déglu waaw déglu ma. waaw waaw ñun ñàkk a dem ci jiw gi lu mu ci doon. mooy boo xam ne ñoom ñoom bëgg ñoom jiw Dakar ma état ci jiw. du ko def ñoom naa ko bañ a laaj. waxuma loolu dama ne ko bëgg duñ ko def bañ a dem ci jiw ñu bañ a dem ci gerte yi. ba mën koo jaay jaay ko. ma ne jiw jiw caafu ci la déggoo

léegi yow dañ a bu ñoom Dakar boobu léegi dëkk ngay dem dem léegi ñoo sonal yow xalaat bu lan mooy sa xalaat yow léegi xalaat bu may de loo ko gisee yow ñoo ñoo laal ko ñoo bañ ah, gi yàqu de gerte gi lu yàqu ma ko damaa xam nga tey boo defee gerte gi mboole ku denc jiw ak sa gerte yoo nga boole ko tëgg dégg ko teg soo ko tëgg déggee ne daf ko déggee nga teg ko du yàqu su ko defee boo léegi bu gerte dégg amee nga jaay ko man ne lii laa man man de lii laa gis non bul wax waxe añaan bul wax baax waay waay ba ma ci da yow yow yow nit ma ka mbaam gerte do ko ci gerte yow ma ni sam bay ba leer wa ci am gerte ni ko na ko ci gerte do ko ko añaan waay yow sama ko waay gerte gi laa bay waay waay topal fa waay yow sama pot waay sukar waay yow ñu moom dëkk dëkk yëpp mën na yóbbu jël seen gerte dama ci gerte waaye laa góor waay laa ñoo xalaat waay laa ñoo xalaat waay Omar baax na jërëjëf ndax danaa kat yow ñoo xalaat yow man xalaat bu bon bi dugg din mën naa laa xamul lan mooy xalaat bu bon yow yaa ñoo xalaat waay yow sa xol bi yàlla ñëwut yow dama ne iblis a jox sa xol bi waaw lan mooy xalaat bu bon lan mooy xalaat bu bon mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy